démb rek ci yow génne barbaa ngi bari yaa ngi ci biir kon mën nañu jaan a ngi ci biir lu bon lu ne mi ngi ci biir mbalit maa ngi ci biir bu tàngaay ñëwee duñu mën a yi ndax xet gu bon yooyu lépp a ngi ci am na yu affaire yoo xam ne day naaw di dugg ci bë bëti nit ñi kon nga xam ne kon basin bi lim ñëw jariñ bareew ñu daal dañuy ñaan yàlla ñu dimbali ñu tiireel ñu ndox mi dindi ñu salte bi ndax jaboot lañu te xale yëpp fi la ñuy foye xale yi dañuy dugg ci biir ak a def nekk loolu moom wóoru wax jaaxle nañu lott nañu jooytu nañ fu nekk tam ndax bassin bii bu ñu xëyee suba ba ngoon mooy suñu mooy suñu yitte dinañ bale dinañ dajale xale yi def ko daal maanaam métier mhm. dañuy bale dañuy lay waaye dara ndaxte li nga xam ni si biir ñun xamuñu ko juróom ñaari mètre si biir yàlla rek moo ko xam waaye keneen xamuñu ko hmm. sunu xale fi ñu fay ndax amuñu feneen ndaxte danger bi mooy gis nañ fi ay bar bar yooyu xëy na sax du boobu danger mais problème bi mooy yeew bi ñu fi gis barka démb ndax yeew bu ndaw la mais problème mooy yeew bi ana yaayam ana papaam je crois ak maamam ñëpp a ngi si biir kenn xamul loolu nag ñun mënuñu koo dindi état moo si mën a taxaw kon état bi nga xam ne moo nekk ci euh, ci loxoom daf ñoo war a sécuriser ñun ñun askan bi kon nag ñoo ngi woo état ndaxte bar moom vraiment wóoru te ñi ko jege ñu ngi dégg ay yuuxu yoo xam ne yàgg nañoo wax ay yuuxu bar la gëmuñu ko yuuxu yeewu mais actuellement nii gis nañu yeew yeew baa ngi noonu jàpp nañ ko yeew bu mag la yu ndaw yaa ngi si biir te xale yi dañuy jéggi di dugg ci biir kon vraiment ñoo ngi woo sécurité bi euh, ñu dimbali ñu. salte ba xet bi day sonal ñëpp surtout sax ñu ne ci wetu bassin bi ku am sa dara fi nga koy tuur ku am sa leneen fi nga koy tuur parce que nu feneen kon nag yaakaar naa ne état bi war na mën a jóg pour jàppale Djeddah Thiaroye Kaw ci sécurité bi ak itam bassin yi nga xam ne moo wër moo wër entourage su Djeddah Djeddah